salaamaaleykum gars yi ak si leen ak jàmm ci suñu chaîne bi di tuto Baba Design gëj naa defay tutoriel nag ndax euh, dama xawoon a jël tuuti pause waaye dañuy jéem a tàmbaliwaat tey nag leçon bi ñuy gis mi ngi euh, porté ci euh, Adobe InDesign Adobe InDesign di logiciel boo xam ne dañ ko jagleel lépp lu jëm ci mbirum mise en page donc tey moom la ñuy gis li ñuy njëkk a gis mooy maanaam dañuy xool interface bi ak nuñ ci mën a naviguer bu ko defee ngeen xam Adobe InDesign nan nga ci mën a tàmbalee ba miin euh, lii di interface bi bu leen fàttee abone bu leen fàttee bés loxo bu bleu bi ak sonné bi bu leen fàttee jàppale sama chaîne bi bu ko defee mu jëm ca kanam a kanam a kanam léegi sama machine egsi nañ euh, ci Adobe InDesign boo leen ubbee Adobe InDesign ba noppi da ngeen di yegsi ci euh, écran d'accueil bi écran d'accueil bi boo seetloo di nga gis ay fichiers yi nga xam ne moom nga jot a ubbi dalay wan dat yi wan la turu fichier bi léegi fii itam bu la neexee nga segg bu la neexee nga recherche fichier bu la neex bu fekkee ni fichier bi yow gisatoo ko da ngay dem fi ñu bind filtre nga tappe turu fichier bi <coughs> excusez-moi boo tappee turu fichier bi da ngay gis dalay lay andil bi nga tappe nañ def sagal ba xam gis nga boo defee sagal da ngay am fichier yu tudd sagal yépp day koy filtre bu la neexee itam nga afficher ko ci liste affichage list bi dalay permettre nga gis détails yu fichier bi maanaam tur bi taille bi date d'ouverture bi wala euh, nom fichier bi léegi li ci topp mooy que ni mën nga créer directement benn fichier ci benn ci bouton bi ngay gis bouton nouveau donc bouton nouveau boo ko bësee lii la lay andil lii nag moo lay permettre nga créer say document boo seetloo di nga gis euh, ay options yu bëri di nga gis euh, lu ci bëri bëri loo xam ne da lay permettre nga créer sa document marge yi colonne yi largeur yi hauteuru fichier bi wala nga dugg ci biir nga jël fichier yi nga xam ne dañ ko prédéfinir ba noppi wala nga xool ci biir mode yi euh, fii daal lépp luy euh, détail technique pour créer sa fichier la am na beneen bouton boo xam ne moo ñuy permettre ñu ouvrir suñu fichier directement boo ci bësee da lay andi ci local bi bu la àndee ci local bi nga dugg ci benn fichier boo xam ne yow defaroon nga ko ba noppi enregistré woon nga ko ba noppi boo xoolee ci kaw am nañ logo wu InDesign boo xoolee ci euh, droite bi am nañ benn barre de recherche boo xam ne mooy ñu permettre ñu def ay recherche am na barre de menu bi itam barre de menu bi moom ñun ñëpp xam nañ ko mooy barre boo xam ne boo seetloo suñu logiciel yu bëri da ciy ne ci ay euh, mi ngi ci Adobe mi ngi ci euh, Word Excel yooyu yëpp mi ngi ci donc baar la boo xam ne souvent dañ koy am ci suñuy logiciel parce que daf ñuy jàppale ci lu bëre bëri bëri bu weesoo loolu nañ dugg ci biir Adobe InDesign bu ko defee ñu xool plan de travail bi fenêtre yeeg yooyu donc dañuy créer benn document a bu ñu yegsee fii boo seetloo ñun fi mu toll nii day xaw a niroog euh, li ñu am day xaw a niroog euh, Photoshop day xaw a niroog Illustrator day xaw a niroog logiciel Adobe yu bëri donc boo seetloo ni mu disposé woo day niroog yeneen logiciel yi boo xoolee ñu ngi am fenêtre flottante yi fii ñu ngi am barre de menu bi ak outils yi ak plan de travail bi ci digg bi donc boo seetloo li ngeen war a jàpp mooy que ni Adobe InDesign dafa xaw a méngoog yeneen logiciel yi waaw léegi li ñu war a def mooy maanaam dama leen di woon nu ñuy modifier suñu plan de donc bu ñu demee ci flèche bi da di dem ci benn plan de bu leen neex bu ñu jëlee euh, nañ jël euh, livre mu jëlee livre da ngay gis ni que Adobe InDesign day adapté wu solon besoin wu livre bi parce que xam nañ ni ci biir livre day am index day am texte conditionnel day am hyperlien wala ak ay signé donc moom loolu la jàpp dafa jàpp ni que livre yi loolu lañ gën a soxla maanaam ñiy liggéey ci livre yi fenêtre yi lañ gën a soxla moo seetloo am nañ page am nañ calque am nañ contour ak nuancier donc Adobe InDesign day adapté wu ci ki nga xam ne moo nekk di liggéey ci Adobe InDesign bi waaw loolu <clears throat> ci Adobe InDesign la mais bu fekkee ni yow da nga bëgg euh, personnaliser da nga bëgg maanaam defar sa plan de travail bopp li ngay def mooy da ngay dañuy génne yenn fenêtre dañuy génne page paragraphe génne quelques fenêtres pour wan leen que ni mun ngeen personnaliser seen plan de travail bi donc bu ñu jàppee ni lii moo baax dañuy dem ci kaw ñu bës nouvel espace de travail bu ñu demee ci nouvel espace de travail ñu enregistré ko test buñ ko enregistré test da ngay seetlu ni que créé nañ espace de travail ba noppi espace de travail bi nag mën nañ ko réinitialiser wala ñu dem ma woon leen beneen yoon ñu dem fenêtre ñu dem espace de travail di ko gis foofu. mu la neexee réinitialiser ko maanaam boo ko jaxasee bu la neexee delloo ko ni mu meloon euh, espace de travail yi nag mettiwul donc c'est juste benn parenthèse la pour ngeen comprendre ni que mun ngeen ranger donc boo seetloo ñu ngi am fii itam outils yi outils yi nag li ngeen war a jàpp mooy saa yi ñuy liggéey ci InDesign dinañ utiliser ay outils bu ko defee nu ñuy gën demee ci InDesign ngeen gën di comprendre outils yi ndax outil bu nekk am na rôle boo seetloo ci digg bi mooy suñu plan de bi maanaam liggéey bi yëpp ci page bu weex bi lañ koy def waaw nii la InDesign di présenté woo xam naa ni yeneen menu yeeg yeneen euh, barre d'options yi nañ ko gis au fur et mesure ñuy dugg ci leçon bi yaakaar naa ni leçon bi neex na leen na ngeen abonné na ngeen bës loxo bu bleu bi na ngeen bës sone bi na ngeen jàppale chaîne bi bu ko defee mu jëm ca kanam a kanam a kanam ñu joxante dig daje ba beneen yoon pour yeneen i vidéo ci suñu chaîne bi du tuto Baba Design ciao caaw